su jant soowee fexeel ba boo tëddee bul nelaw ndaxte bu timis weesoo dafay dellu si waat kon nag l'observateur moo daal di fësal ni maître Abdoulaye Wade dig na Macky Sall li nga xam moo di pënd Hitler ga xare Badar boo xam ni ca dëgg-dëgg dina tàng jël kii di maître Abdoulaye Wade toogoon ca Tugal jàpp njàmburam ginnaaw bi ñu indee deuxième mise en demeure bi nu indil ki nga xam moo di doomam Karim Meïssa Wade di ko jiñaat xaalis ci ak lubal loolu nag maître Wade nee du ko nangu te du ko seetaan li ñu indi ci ay preuve taxawu ca moom dina indi firnde yoo xam ne day wane li ñu jiin doomam du dëgg maître Abdoulaye Wade dafa sàkku ci avocat yi nga xam ni ñooy taxaw ki nga xamoo di Karim Meïssa Wade ñu indi nag ci seen i ay këyit ay mbir yoo xamante day wane li ñuy toppee doomam amul ba ca topp mooy maître Wade nee na waa PDS jot na ñu jug taxaw jàkkarloo ak Macky Sall ak nguuram ndaxte Macky Sall li muy def mooy fayantoo ginnaaw bi mu leen meree ñoom ñi nga xam ñooy waa kër Abdoulaye Wade Wade nag nee na loolu moom dootu ko seetaan koy jiiñ yëpp deuxième mise en demeure bi ñu indi mooy woon ni amul lenn loo xam ni mun ko ko taqal ba tax na jamono yi nag ma ngay xaqataay di ree ca xam ni mbir mi du mujjee fenn. ci wàllu traque des biens mal acquis alal joo xam dafa tegu ci luubal wala amin nga xel def cee tey la tribune fësal ki nga xam moo di Abbas Jaber Abbas Jaber ñëpp xam na ni ton sona ko soppi ko def ko senior mom nak ci walu luubal ñi ngi koy top ñi mu joxe Nous, lu tollok ñaari milliards yu 500 millions ñaari milliards yo xam ni téeméeri millions la daal di tegal loolu su ko joxewul li wér te wóor mooy dina dem fi nga xam ne fa la mbaxana benn te dinañ ko làq li nga xam moo di jant bi ba tax na jamono yi ña ngay xool mbir moomu ni koy médiation pénale ci wàllu politique ba tey ñu cëppeelu ci l'observateur mu fësal Idrissa Seck un renard politique face au loup ñun koy Teké moy dañ wax ni Idrissa Seck muus na loon ci wàllu politique waaye ñi mu jàkkaarloon ci dëgg-dëgg ay bukki lañ xam dañu wekkoo li nga xam mo di deru bëy ñom nenañ maître Abdoulaye Wade dafa bugg ba nga xamante ni lii mooy famille libérale ñu àndandoo booloo ñoom ñëpp nekk benn Idrissa Seck ñu boole ko ci waaye dañuy fàttali Idrissa Seck démb nguuru Abdoulaye Wade dañ ko doon xeex ba dugal ko kaso ñi ko bañ ca parti ba dañoo bëri naka lañ koy joxee loxo mu dellu soit liggéey ak ñoom dina metti lool te ki nga xamoo di Ibou Sané nekk politologue nee na Idrissa Seck nit koo xam dafa waa gaaw a gis boppam gaaw a gis boppam ba nga xamante ni ca dëgg-dëgg kenn xalaatul ni projet boobu dina ko mën a réussir parce que ñim nar a bokkal ndap li ca dëgg-dëgg ñii seen loxo dafa taq àq ñële tamit dañ koy siis loolu nag du neex a lijjanti. laata ñu tàggalikook Idrissa sa dañuy yër yéen a kaay bi ñu naan Walf Grand Place yéen a kaay bi ci front de terre dikkaat ci nga xam moo di Idrissa Seck parteem jamono yi nag ca dëgg-dëgg ay niir yu lëndëm ñoo leen daal di tiim bëri na ay jeexi jaaxa yu fa am fi nga xam moo di pikin pikin ñi nga xam ñoo di militant wu Idrissa Seck yi mer nan nee nañ parti bi ca dëgg-dëgg amatul animation maanaam kenn dundalu ko gel des activités bëri na ci ñoo xam dañoo dakkal li nga xam mooy seen ay activité biir daal di téye seen loxo am nañu ci am ay frustration mer goo xam ca dëgg-dëgg guuxal nañ ko ki nga xam moo di Idrissa Seck ñoom ña ngay jéem a weddi waaye réew mi fi nga yi ca nga dëgg ni ko Idriss Seck waxee réew mi doxul waaye réew mi ca Pikine ca dëgg-dëgg doxul la tribune yéene kaay ñëw ci li nga xamante ni ki ko ŋànk moo di ministre de l'urbanisme kooku la ñuy woy Khoudia Mbaye Khoudia Mbaye lan la bëgg mooy def audit maanaam fexe saytu suuf si nga xam nga nekk fi nga xamoo di foire pour xam suuf soosu nag lañ ko séddoo te lu ci bëri dafa mel dafa tegu ci luubal loolu nag kii di président Macky sal nee na ko teg ko ci suuf bul ko lumbar ci bul ko gëstu dafay mel ni nag mbir moomu suñ ko yëngalee dina ci bëri kilifa yoo xam dinañ leen indil ay jeexi jaaxaar ñi di jëwriñ di Bathily Bathily nag nee na ko tegal mbir mi ci suuf ba tax na ma Macky Sall mer na lool bi mu yëgee ne Khoudia Mbaye ma nga yëngal suuf si nga xam moo nekk fi nga xam moo di foire ba loolu nag dafa nekk xobu xëll ëpp na gémme ñu tef ko nag soxna si bu laal loolu la président bëgg ginnaaw coow li nga xam ni amoon na ci aéroport Léopold cedar Senghor mu mu amoon benn avion américain boo xam ne dafa génnoon li nga xam di piste bi indi goo xam ni kenn xamul foo koy nettale La Tribune moo xëyaat ak nun ci beneen xew bu am fi nga xam moo di Léopold Sédar Senghor avion boo xam ni vol Sénégal Airlines bi nga xam dafa jëmoon Ziguinchor départ fii bi juróomi waxtu tagalee ñeent fukki simili yi waaye nag am na jeexi jaaxal yu ci xew ba tax na àggul fi nga xam moo di Ziguinchor avion boobu dafa jóge waat si Ziguinchor wàcc si waat fi nga xam moo di Ndakaaru ci boolu juróom-ñaari waxtu ci ngoon nekk mbir moo xam ci wàllu aéroport jamono yi képp koo xam da ngay tukki sa bakkan mu ngi ci xottu gerte ndaxte tiitaange ga jeexi jaaxa ci wàllu technique bi ma ngay wëy ba tey ñu seeti yéene kaay bi nga xamante ni moom la ñuy woowe Walf Grand Place nekk fi nga xam moo di front de terre dëkk ci mbir moo xamante ni yéem na ñi nga xam ñoo di rappeurs yi nee na leen kii nga xam ni mooy doomu ndeyu rappeurs yi ci Sénégal ca nekk bitim réew États-Unis ñu koy wooye Akon léegi nag mun nañ koy wooye El Hadji Akon Akon lan la fas yéene dafa fas yéene dem fi nga xam moo di Makka daal di ak ànd ak ki nga xam moo di wéy juram bu góor ak ki nga xam moo di wéy juram bu jigéen àndaale ak ay magam ak ay rakkam ay kon kii di papam tudd Mor Thiam nee na loolu nag projet la bu mu yàggoon bëgg doxal nag te nee na ma ngay bind way boo xam ni kii di yonent bi Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam moom la ci daal di kañ ba tax na jamono yi rappeurs yi am nañu nag ilimaan bu bees boo xam ni xëy na bu mu tegee micro yi bu ne jug leen julli bu liqaamee moom mooy daal di jiite. tribune yene kay dal di cëppelu ak ñun ci langu li nga xam di lamb ji waaye accès guñu ci tàggat yaram me mbir mi ki mu soxal moo di the lion king ji di doomu dubales di magu ches ñu koy triples balla gay ciow topp na ko kii di samba ceema ko kayta nekk promoteur bo xam ni mi ngi dëkk fi nga xam di muritani nee na nag balla gay ak ki xaritam bi ñuy wooye njaga saar lekk nañu 5 millions loolu nag dafa nekk mbir moo xam daa am kanen ku ànd ak njaga saar daa di ni moom mooy balla gay di négocier ñoom ba njox ko xaalis bi mu def ko ci li nga xam moo di poosam jaaral fa ni may kii di Balla ba ban ko laajee mbir moomu ci téléphone nee na bu ko ko kenn tudd gisul fekkewul yëgul loolu nañ ko liggéen ci ak ki nga xam moo di Ndiaga Sarr moom xamul ci dara bu dee am na keneen koo xam ne ñëw ni ni mooy Balla Gaye ba ñu jox ko seen xaalis loolu seeni i mbir la ñoon topp ñooñu moom tallul loolu ca dëgg-dëgg jamono yi jugee na Ziguinchor dafa bëgg a noppalu kon nag mbokk ak xarit yu setan scott chez kali su déconnecté ba de fi nga xam senegal tv ñu dugg ak yeen ci seen xibaaru xew-xewu jamono ciow li nga xam mo amon ci nawetan yi estat stade Iba Mar job diggante ngaraf ak damel ba am ci ku ci ñakkon bakkanam ñu koy woye Moussa Si ciowlol ma ngay woy fi nga xam mo di ta tak ya jamono yi dakal dakkal lu nawetan ci estat bobu nu naan Iba Mar Diop waaye nag commissariat ba nak ñoo jëlon dossier bi di ko seytu la taxoon nag am ñu gaañu ba am ku ci ñàkk bakkanam dafa mel ne ba jiixi jaaxa ba jollee ca stade ba ñii di takk der dana fa sànni ay lacrymogène jaxasoo boobu faat na nag bakkanu benn nit bu naan Moussa Sy tax na nag sûreté urbaine jël na dossier boobu jëlee ko ci loxo commissariat bi di ko seytu jamono yi ngir ñu xam kii nga xamante ni moo di Moussa Sy lan moo ko faat ca mbir moomu naka la ko yoon di àttee ñu cëppeelu ci tribune yene kaay li muy fësal lan ca teg moo di tës waaroo gay loxo nag faw mu dara ci gémmiñ lii nag képp kun ko nettali doo ko gëm mu mel ni jëkkër ak jabar couple boo xam ni yàlla daf leen may ay tout tànk sëy na lu tolloog fukki at ak ñaar waaye am na ci seen doom bi mu mujjee juddu ba mu juddoo kooku am na juróom benni at dañ ni nag dafa am li nga xam moo di sida sida bi fan la ko jëlee ci yaayam waaye nag yaayam mooy wax nee na musul mooy jëkkëram ju jigéen ji foo ca jëkkëram nekk na koo xam ni ca dëgg-dëgg musul jadd yoon ba mu demee fi nga xam moo di hôpital di def test lañ ko ni yow ca dëgg-dëgg da am li nga xam moo di sida bi ci way jur la jugee yaay ji baay bi fan lañ ko jëlee kan moo leen ko wàll dan doon foo fowunu dan doon mooy moy nu seen doom feebar na ma nga tëdd l'hôpital xamuñu mbir mi nu ñu koy attee waajur yi nag jamono yi jaaxle nañ lool ca ñoom nee nañ musuñu ba am sida kon nu ñu def ba mu agsi ci seen doom loolu manaara ngi ni naar yaa ngi ni nan ko topp ngir ñu xam fu wanneen di mujjee ki gëtëm kon nag mbokk ak xarit ci ñuy seetaan wax waxaat du bari wax leeral ay wax la li ñu bëgg leeral nag mooy seen xibaaru tàggat yaram tijji leen yéen kay bi ñu naan l'observateur ci xëta mu njëkk mu dikk ci match bi ñëpp di xaar ci diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire Sénégal Côte d'Ivoire mooy yoon bi Sénégal war a jaar pour dem fi nga xam moo di coupe du monde ba ca Brésil ci 2014 ñëpp xam na ni Côte d'Ivoire moo nu fekkoon pët nu pët yoo xam ne ba ilaaw ñu diini dot ñu ko fàtte xañ ñu coupe d'Afrique mbaa moo ni xañ fi nga xam moo di coupe du monde ah gaynde yi jamono yi nag gis nañ loo xam ne jaaxal na leen ba tax na keneen di tàggat di Alain Giresse nee na c'est dommage mbir mi nag metti na ci metti moy ñuy football match bo xam dañuy xalaat ni Côte d'Ivoire daf na dóoroon ñu ñëw bëgg a fayu kenn ku ci nekk daas fananal kenn ku ci nekk guuxal sa morom mer loolu bugguma ko ci match bi Sabri Lamouchi nga xam mooy tàggat Côte d'Ivoire nee na nag ca dëgg-dëgg moom buggoon na lépp ba mu des Sénégal daje Côte d'Ivoire Lamouchi lu tax mu metti lu loolu mooy neen match boobu buñ koy football duñ ànd ak seen xel waaye seen xol la ñuy jiital teg ci xel yi kenn ku ci nekk di bëgg a fayu ci loolu mun na yàq esprit match bi ba tax na Sénégal Côte d'Ivoire ñooy suñu doomu bàjjan fépp fu mu taseeg ñun wannu biddéew bëccëg yéenekaay yi xëy wax ci loolu dafa bëri yéenekaay bi ci front de terre Walf Grand Place ni jamono yi nag ñi nga xam ñoo di gaynde Sénégal yi bu ñu tëddee di nelaw li wérte woon mooy benn bët la ñuy nelawee beneen bi dañ koy ubbi nag di xalaat seen diggante di waar mi nga xam ni duma woon na leen fi nga xam mu di Léopold Sédar Senghor duma yoo xam ne ca dëgg-dëgg dootuñu ko fàtte ba tax ñu ak stade bi léegi ñu fubal bitim réew la ñuy fubalee ci ñi nga xam moo di éléphant yi ca dëgg-dëgg balaa noo jaar ci seen kaw loolu moom dina nekk loo xam ca dëgg-dëgg deug deug dinañ xamni nak yalla julli la santane tribune yene kay melni wëlé na wax joju senegal cote d'ivoire mu daldi fessel dj drogba mi nga xamni mo nu rayon won nu nak lo xam ci deug deug dot ñu ko faté ñena nak match bi nak senegal lata muy dem fi nga xam modi brésil faw nak mu lek li nga xam modi atiaké atiaké nak plat la bo xamni cote d'ivoire moy seen bu jën lool nak buñ ko mënta yey saxamiko duñ mëna jaar ci kaw ivoirien yi ferdinand kouli mi bokon ci équipe nationale bu 2002 yëkëti ay kaddu ni li nak amul luñ ci tit li occasion la pour senegal Sénégal di fayu kanam borom fajal Sénégal Côte d'Ivoire ñëpp ngi teg seen gët ci match boobu laata ni dem fi nga xam Brésil. wuré wa dem na këng waxi mag dem nañ dañ tàlli ubbi leen yéen kaay bii nu naan suñu làmb ci xëtam mu jëkk mu dëkk ci nga xam ne Ibou Ndiaye ñoxo baay boo leen ko dëggee mooy microcentral bi nga xam ci wàllu làmb ji bis bu ne mooy def animation bi moom ak Ipo Ngane yëkkati na ay kàddu ni gis nga Balla Gaye numéro 2 The Lion King bu bëri woon fukki yoon ak ki nga xam mu Modou Lo Balla Gaye da koy tël ci suuf ndaxte moo ko man Ibou Ndiaye joxo baay nee na Balla Gaye mbër la Modou Lo mbërëntaan la wala bërikat la nee na Balla Gaye ca dëgg-dëgg ci wàllu technique moo dàq bëri Yékini ca moo dàq bëri Modou Lo ci wàllu performance sax bu ñu xoolee Balla Gaye ñi mu daan ak ni mu leen daane moom moo jiitu ki nga xam moo di Yaxya Diop Yékini laaj nañ ko digganteem ak Ipo Ngari nga xam bu teyee ñu juboo bu subaa ñu xuloo nee na Ipo Ngari lenn rek mooy problème am dafa jaloux maanaam dafa ma iñaane dafa ma iñaane dafa ma soxore yéen kaay bi dikk ci ki nga xam ni bu jant di waaj a sow ku mu ne nikk ni la yóot dalay tël ba ca kaw dur la ci suuf kooku moo di le puma de face Papa Sow nee nañ ca dëgg-dëgg kii di Gris Bordeaux bu moytuwul dina ko romb ci wàllu victoire maanaam ndam yi mu am ci làmb ñaar fukki combat ak benn kii di Papa Sow daan na ko romb na Gris Bordeaux ci wàllu ndam ba tax na Gris Bordeaux mi nii moom mooy deuxième tigre de Fass bi nga xam ni moo wutu Moustapha Guèye kii di Papa Sow mi ngi ci ay tànkam ca bu ñu xoolee Papa Sow fi mu jaar ci làmb kii di Moustapha Guèye li mu def ci écurie def ko ci làmb bu moytuwul Papa moom tamit dina ko daal di romb kon nag écurie jamono yi nag ñu ngi koy tëggal li nga xam moo di yi takkal ko jaj yi ngir nag ndam mun na dellu si ci biir écurie bi xabaar bi neexul xam ngeen ni Xadi Juuf yar waagu génn nga xam moo di àdduna ah ayubés bi ñu daal di jàll ba tax na ñu ngi koy jooy waaye na ngay xalaat ëllëg kan moo ko nar a wuutu ci wàllu way yu neex yi mu doon wayal baat bu neex bi mu awoon mayeen dépp nga xam ni jooy na ko ndiku cuun ñépp ñi nga xam ni waaye ahlu làmb jooy nañ ko yéene bi nag wan nag keroog ba ñuy jël li nga xam di néewam di ko jullee di ko waaj yóbbu nag di ko daal di jébbal boromam mu di ay image ay nataal yoo xam ni képp ku ko xool sa xel dina daal di tooy kon nag mbokk ak xarit yu ñuy seetaan revue de presse quotidienne bi dafa mel ni agsi nañ ca waaye nag laata ñu koy ndar képp affaire bu doy waar. xam ngeen ni ci wàllu traque des biens mal acquis alal ju tegu ci luubal wala na ko amee xel da cay tey ba tax ñu jàppale ne la ràcc ci kaso bii kañ ca jiital moo di Karim Meïssa Wade 700 milliards la ñu teg ci ndoddam ñu def ko daal di luubal loolu ñu ngi xaar ci ay kayit mu woon leen ndax moo ko moom wala moomu ko waaye li ñuy gën a dem ñi gis ni lu ci bëri moomu ko jamono yi mi nga fi nga xam moo di Rebeuss ñu joxaat ko beneen mise en demeure boo xam dafa war a wax jëlee ñu ko ci yeneen milliards yoo xam ne kenn xamul nu kii di Karim Meïssa Wade ndekete yoo lim nekk ci kaso bi yépp ca dëgg-dëgg mi ngi fa di yaataat yimbee di ndaataat talax parce que amul lenn lu muy ragal ndekete yoo kii di Karim Meïssa Wade lim fa nekk yépp mu ngi seetaan TFM di seetaan ki nga xam di Kouthia bis bu ne da koy tooñ ba tax na Karim nee na nun mënti def nan ko dem wërale ki nga xam moo di Kouthia téye ko ci loxo waabale ko indi ko fi nga xamoon ni prison bi mu daal koy seet parce que Kouthia daf koy reetaan loo ba tax nag kii di Karim Meïssa Wade wax na leen nag képp ku ko mën a dimbali ci Kouthia seet si ko loolu dina ko neex lool parce que bis bu ne bi ca moom xam na ni deful dara fi nga xamante mooy mise en bi mujj bi ndekete yoo ay erreur moo ci ne yu woon ni moom compte Monaco amu ko ca kenn amul ci même benn firnde bàyyi ko rek moo fi des ndax loolu dina am ak du am topp leen ko ci yéene Savior. kon nak mbokk xarit ci ndon setan dafa melni sun suñu revue de presse quotidienne agsi nañ fi nga xam fofu lañuy tag tok yeen may jaajëfal ni ma won ci walu xarala bi di ci jiital ki nga xam ni prince moses mom mo nekkon ci réalisation bi nek ci bëtu wax fang bi nga xam motax tax ngeen di gis lepp nekkaat ci fi nga xam modi montage bi kiñ ci jappalé comme assistante di amina ñu koy jaajëfal di leen wax ni nak ci deug setan ñi ni setan ci aduna bi yépp ñu leen di nuyu ma ci sama doomu ndey ndok malik jeng mi nekk londres fi nga xam modi angleterre ma tek ci nak sama premier barafal ma ci états-unis albanie ma leen di wax wax ni revue de presse quotidienne bi day dellu si waat suba incha allah wasalaam.